li concerne Yankhoba Diattara personne au monde ne doute de sa loyauté à mes côtés wante wante day bëgg a samay caaya wax na ma ko ca mag la boo ca duggee ah am lu la ca fekk xam nga li mu def bu ko Déthié Fall defoon mooy toog fii Déthié Fall moom rekk laa waxoon lii xew ci bi ñu waxtaanee ak Macky ba pare mais ma ne ko yow duma la dugal ci gouvernement puisque yore nga ñaari poste yoo xam ni bu ma la fa jëlee yóbbu la ci gouvernement bi réew mi da koy ñàkk te poste bu nekk faj na soxla député nga assemblée nationale ba nu nekk directeur technique waroon a nekk d'ailleurs directeur général bu NMA puisque xam-xamam may na ko mu ne ma d'accord ñibbi këram am lu changé mu am honnêteté itam puisque ku honnête la man ñi ma yar ñëpp yàlla moo ma leen tànnal dañuy am xam-xam dañuy yaru dañuy am fit te déecee ci la bokk bii mu ñëwee ne ma effectivement waxtaan na ak soxna si waxtaan na ak frère yi mais ñoom gisewuñu ko noonu ma ne ko mais c'est normal sa jabar sa ndam rek la bëgg man bu doon présidence de la république dañ koy jënd di joxe wala nga lijjanti ko nday pend da lijjanti jox ma c'est normal qu'elle soit de ton côté mais ne l'écoute pas sur ce sujet-là donne-lui raison mais toi ne dis plus rien parce que il ne faut jamais parler sous l'emprise de la passion ou de la colère ñu nekk ci loolu mu dem assemblée nationale alors que waxoon naa ko bul wax mu wax léegi moom moo nekkoon premier vice-président du parti d'ailleurs il était vice-président exclusif le seul le seul vice-président du parti donc bu waxee

na delluwaat assemblée nationale wax ne lii mu waxoon njuumte la affaire bi jeex mais xam ngeen euh, Iblis dafa bari doole Iblis dafa dem seeti yonent yàlla Muusa ne ko yow nee nañu yow yaa mën a wax ak yàlla man nag ba ma xuloog yàlla ba léegi yonent yi fi jaar bari nañu kenn mësta dox diggante bi pour defareñ te maa ngi bëgg a dee yow dox ci boog wax ci Iblis ne ko ah wax dëgg euh, euh, Moussa ne ko ah yow day wax dëgg yàlla comme bëgg ngaa tuub nag moom wax dëgg yàlla danaa ci def defi jéego Moussa dem seeti yàlla ne ko ah sa noon sa sa jaam bii day di Iblis te defoon njuumte lu rëy loolu ñaan na ma ma dox ci diggante bi yàlla ne ko mais amul problème moom dama ko waxoon na sujjóotal aadama mu bañ ma dàq ko lii rekk la ne ko aadama nga fële ñu suul na fa dem ca bàmmeel ba rek yaxya sax xam naa ni newatu fa mais bu ko sujjóotalee rek ñu juboo musaa kontaan ne réussir na mission waaxu waaxu mu dëgër ñëw ci iblis ne ko affaire bi sotti na mu ne ko ah mu ne ko sotti na borom bi daal nee na la mu la santoon nga bañ rek ngeen jote jotewu leen leneen léegi boo delloo ca bàmmeel ba nga sujjóot rek affaire bi jeex iblis ne ko eh mais eh, yow yow yow yow yow yow yow nga may wax lu mu doon yow kii ba muy bees ñu ne ma sujootal ko ma bañ léegi mu dem ba fënax ma koy sujootal waaye dem naa waay donc c'est tout Yankhoba je l'ai sanctionné il a dit il considère que j'ai fauté j'accepte la sanction c'est ça le premier message qu'il m'est écrit et quand il m'a envoyé ce message. J'ai euh, Macky Sall, euh, on en a parlé, je lui ai dit la faute porte seulement sur la politique. Elle n'a rien à voir avec le gouvernement. Au contraire, au gouvernement, il nous a ramené des coupes d'Afrique. Donc, je ne vais pas le sanctionner.

au niveau du gouvernement il fait un excellent travail comme Ali Saleh Diop pourquoi voulez-vous que je le sanctionne et d'ailleurs les